أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi am mbégte fas yéene jàkkaarloo yéen ci ajumay tey ji fas yéene ànd ak yéen waxtaan woo xam ne mi ngi jëm ci azaka ñu ngi nuyu mboolem ñu fi teew tey nuyu xalifa al am Cheikh Mouhamadul Moustapha di ko ñaanal yàlla may ko wér may ko gudd fan ak mboolem njabootu sëriñ bi naka noonu la ñuy nuyoo ak ndokkeel nga xam ne ñooy taxawal jotaay bu am solo bi di waa waa xidma ci njiital sëñ Afiya Buso ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi ni ko sëriñ Saliou Diakhar waxee sëriñ Saliou Diakhar waxee nag tey jii ñu ngi fas yéene waxtaane lu jëm ci maqaasidu zaka maqaasidu zaka bu ñu ko waxee mooy jubluwaayu asaka ndax xam ngeen ne lislaam lépp lu muy tëral ci àtte da koy wutal da koy wutal ak jubluwaay maanaam bu ñu nee maqasid mooy jubluwaay yi nga xam ne moo tax lislaam yoonal mbir bu ñu nee julli am na ay jubluwaay yu tax yàlla yoonal ko bu ñu nee koor noonu bu ñu nee aj Makka noonu ba tey asaka yëpp noonu la amee ay jubluwaay yoo xam ne moo tax lislaam yoonal ko kon bu ñu nee jubluwaay mooy la nga xam ne moo ne ci ginnaaw àtte ya waaye la nga xam ne moom la lislaam di jublu ci gannaaw àtte ya ndax bu ñu nee julli la moo tax ñu julli mooy bokk na ca mooy julli day taxa def lu bon mooy inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar naka noonu woor bokk na ci ay jubluwaayam mooy day tax nit ki am ragal yàlla la'allakum tattaqun kon bu ñu nee jubluwaay mooy li tax yàlla yoonal mbir maanaam lañ lañ ca mën a jëlee loolu mooy jubluwaay kon bu ñu nee asaka buñ ko yoonalee am na lu tax ñu yoonal ko yooyu lañ ko séenee indi insha allah ci waxtaanu tey wi su ko defee nag am na lu ñuy wax ay jubluwaay yu mag ci lislaam al maqasid al kubra ni ñu ko xamee juróom mbir la ba ci njëkk mooy lislaam daa ñëw ngir sàmm diine ngir wattu diine moo ci jiitu bi ci topp mooy daa ñëw ngir wattu maanaa alal bi ci topp mooy daa ñëw ngir wattu bakkan doomu aadama bi ko ñeenteel mooy daa daa ñëw ngir wattu askan bi ko juróomeel mooy daa ñëw ngir wattu maanaam li ñuy wax nasl wala al ird am ñu ko wooye al ird waaye daal mooy fexe ba sàmm deru nit ki kon juróom juróom yooyu mooy jubluwaayu asak jubluwaayu lislaam yi gën a mag ci lislaam kon lislaam léppam gënnut juróom yooyu mooy sàmm diine ak sàmm alal ak sàmm xel waaw loolu dama ko fàtte woon xel la maanaam xel la ak alal ak diine ak maanaa maanaa nasab mooy mooy askan ak li ñuy wax al ird mooy der ñi ñenn ñi di ko waaye an nasl ba tey kon juróom yooyu mooy yi nga xam ne moom la lislaam di sàmm ci mboolem atti atem yépp génn ko léegi nag ci biir juróom yooyu bokk na ci xifzul maal mooy sàmm alal kon asaka day dugg ci bunt boobu kon yàlla da koy yonal ngir sàmm alal ngir sàmm alal waaw su ko defee nag ngir sàmm alal am na ñaari yoon yoo xam ne lislaam daf koo tëral donte asaka nekkul rek sàmm alal waaye sàmm diine mi ngi ci sàmm diine mi ngi ci sàmm bakkan mi ngi ci ndax bu fekkee dañuy wax ne asaka konkon ci lislaam kon taxawal ko mooy taxawal diine ndax buñ ko mabbee rek dañu mabbu diine comme ni nga xam ne julli konkon ci lislaam ak woor ak aj makk kon ni ni asaka nekkee sàmm alal noonu la nekkee sàmm diine ba tey noonu la nekkee sàmm bakkan ndax bakkan lislaam daa daa aaye ñu koy rey kon ki nga xam ne daa xiif ba amul lu mu lekk te ñu war te ñu waroon ko jox asaka ngir mën cee jëfandikoo buñ ko sàgganee bu faatoo kon loolu day dugg ci buntub sànq bakkan te kon lislaam daa sàmm daa daa dig lañuy sàmm bakkan kon gis nga ne asaka day dugg ci buntub sàmm diine ak sàmm bakkan waaye la ci gën a fës nag mooy sàmm alal sàmm alal moo tax bokk na ci yi tax yàlla yoonal ko léegi nag lislaam ngir sàmm alal daa teg ñaari ñaari mbir ngir sàmm alal ñaari mbir teg yoo xam ne mënta ñàkk ba ci njëkk mooy dafa digle nit ñi dem sàkku ji alal mooy ifal mooy demal sàkku ji gannaaw boo sàkkoo nag mu ne la laa tafal muy am na yoo xam ne doo ko sanc alal ji kon ñaar yooyu moom la lislaam teg ngir sàmm alal mooy dalaa digal nga dem fàggu ji gannaaw boo fàggoo it mu ne la kat maanaam sañoo sa alal ji nga def ko foofu la neex waaye daa am foo ko war a def ak foo ko war a def kon ci buntum digal loolu mu digal jàmbi mu dem sàkku ji lu leew loolu bu ci taxawoon mën naa nekk waxtaanu boppam mooy kon lislaam daa soññee ci ñu dem fàggu ji lu leew maanaam fàggu rek waaye fàggu fàggu lu leew moo tax muy wax waaye bu ko def fàggu lu la neex loolu suñu borom wax na ko ci ay bërëb yu bëri bi ca ci alxuraanu karim bokk na ci li mu wax ne wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur ak fa ida qudiyat salaatu fantasiru fi lardi wabtaxu min fadlillah kon ci alxuraan bëri na aay yoo xam ne day soññee nit ñi ci fàggulu leew naka noonu biñ biñ demee ci ahadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy fekk muy soññee ci fàggulu leew bu ñëwee ci sëriñ bi ci ay mbindam gis nañ lool muy muy insister muy taxaw lool ci jaam bi la muy faggu nekk lu leew ndax moo koy mën a permettre la muy jaamu yàlla yàlla man ko nangu kon buntu sàkk sàkk lu leew day buntu bu am solo ci lislaam te it mooy buntu bi nga xam ne ci lañ mën a jaare ngir sàmm alal waaw xam naa danañ ci ñëw ci lu gën a yaatu moo tax sëriñ bi di wax ne na nga xam ne kat faggu lu leew farata la ci ab jullit wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri waxami faggu lu leew mën ta ñàkk ci ab jullit ndax mooy tax bi ngay jaamu yàlla yàlla man ko nangu wakul xalaalan in aradta an tutia allah wa rasula yasal mutia waxaat ne fàggulu lew moo lay jegeel yàlla maanaam fàggulu lew mooy li nga xam ne mooy tax nga mën a jegeel yàlla waaye boo day jëfandikoo loo xam ne lewut doo jaamu yàlla yàlla du ko nangu kon li njëkk ci lislaam li santaane mooy dem fàggu léegi nag boo fàggu bu ñëw mu ne la kat amoo droit li nga fàggu nga def ko fu la neex waaye daa am bunt yoo ko war a def mooy na nga ko dugal foo xam ne neex na yàlla waaye it bu bu ci yàq maanaam bu fàggu ba am lépp bu ko yàq su borom nee na ukulu washrabu wala tusrifu maanaam israaf yàlla da ko aay mooy sa alal ji la ji la yàlla jox nga di ko pasare pasare di ko dugal foo xam ne amul njariñ te it waxoon na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kaanu ixwaana shayatin ne ko kat alal ji la yàlla jox bu ko pasar pasaree ndax mu ne ñi nga xam ne ñooy pasar pasaree alal ñoo bokk ci bokki seytaan yi waxaat ko ne ko wala tajal yadaka maxlulatan ila unuqik wala tabsutuha kullal bas maanaam bul nay ba ëpp waaye bul pasar pasaree alal kon ñaari yooyu mooy ñaar yi nga xam ne lislaam daf koo teg ngir sàmm alal muy demal demal def mooy demal liggéey demal sàkk ju lew danaa boo ko amee nag mu ne la bu ko yàq na nga ko sakanal ngir mu mën a am njëriñ yow mu amal la njëriñ amal njëriñ askan bi moo tax sëriñ bi wax ne képp koo xam ne am na lu lew sa sànq ko nga xam ne ko nga xam ne kat kooku ku ñuy sànq lay doon waaw wa in wajadtahu fala tudayi'a mu waxe sax wa man wa in wajadtahu fala tudayi'a fa man yudayi alxalaala duya waaw maanaam képp ku sàkk lu leew ba am ko na ko moytoo sànq ndax mu ne ku sànq lu leew kat suñu borom tam dana la sànq kon jubluwaayu lislaam ci alal mooy sàmm ko te jaare ko ci ñaar yooyu mooy faggu ak bañ a yàq kon asaka day dugg ci buntu boobu maanaam day dugg ci buntu sàmm alal bi su ko defee lislaam ba tey am na ñaar yu tegaat ngir sàmm alal jooju man mën naa ko tuddee maanaam ñaari xaq yoo xam ne dafa dafa daf koo gàll ci ci alal ñaari xaq ñaari xaq ñaari xaq yoo xam ne daf koo gàll ci alal ji maanaam amut bu leen yetteel am na lu ñuy wax am na lu ñuy wax xaqu tashqil ak xaqu zaka maanaam bi ci njëkk mooy alal ji la yàlla jox am nga ci ñaari droit bi ci njëkk mooy l'islam may na la buntu kat alal ji nga di ko nga di ci yaxal ci yëngatu muy yokk loolu mooy xaqu tashxil mooy nga di ci nga di ci yaxantu di ci yëngatu muy yokk di dolliku naka noonu it nga di ci dimbale ñi nga xam ne dañoo sopp ci yow nga dimbale leen lu mel ne saraxee dimbale say waajur ak yu mel noonu yow sa wàllu bopp sa li ngay dundee ak sa njaboot kon loolu mooy xàq bu njëkk ci alal mooy am nga ci droit ci jëfandikoo ci cadre bi leen islam may moo xam sa wàllu bopp la yow wala sa njaboot wala nga dimbale ñi way néew doole yi wala nga def ci commerce bu yokk loolu mooy xàq bu njëkk moo tax yóbbee boo xam ne inna fil maali xaqan xaqan siwa zaka maanaam alal am na yeneen àq yu yoo xam ne daf ci aju yu bokkul asaka am na yeneen àq yu ci aju yu bokkul asaka àq yooyu mooy yi ma wax léegi mooy maanaam àq yi mën cee dund mën cee mën cee def ay sarax ak ay jaamu yàlla yu wuute waaye àq yooyu nekkul lu war nekkul loo xam ne lislam dala ko forcé nekk boo ko dugg dañ ci am bàkkaar wala ëllëg sawara mën la cee teg kon mooy xaqu tashxil léegi nag xaqu ñaareel bi mooy mooy ban mooy xaqu zakat léegi bu la yàlla joxe alal may na la fukki weer ak ñaar ne la bu la neexee nga def ci commerce man cee dimbale way ñëw doole yi man cee dafay créé ay société mu jël ay emploi ñu liggéey waaye nag soo ko deful nag ba at mi jeex bu saata yi dajee mu ne la kat kon xaqu ñaareel mooy ñëw muy zakat asaka kon day dañuy gis ne xàq bu njëkk bi moo gën a yaatu muy lu saam may nga la fukki weer ak ñaar sa alal ji loolu neex na ko jël waaw léegi nag boo ko deful nag ne dama koy dama koy denc rek jëm ci kenn xamut man la déedéet sañoo ko kon boobaa asaka mooy ñëw te bu ñëwee nag moom sañoo ko bañ mu faaw du koy génne soo génnewul am na ay daan yu war a teg waaw kon loolu lu mat a leeral la ci bunt dañu toll te sax maanaam nit ñi nit nga xam ne yàlla da ko jox alal may ko ab diir bu yaatu ne ko def ci def ci lu la neex am na nu tee doxalee asaka du ko war ndax bu fekkee ma ngi koy dugal fa nga ko war a fa nga ko war a dugal su at mi dee asaka mën na ko bañ a war ndax mën naa am sàtte yëpp du ci daje moo tax ngay gis koo xam ne am na alal yu bëree bëri waaye asaka du ko war ndax lan maanaam sàtte yi ci ci ci daje du ci daje ndax boo ko defee sàtte mooy na mat nisaab waaye alal ji lu mu bëri bëri bu fekkee matul nisaab ak lu mu bëri bëri askan war kon boo ko boo boo boo boo ko boo ko boo ko jëfandikoo ci jëfandiku bi ñu wax asaka mën na caa bañ a war moo tax ngay gis borom alal yoo xam ne mën nañoo am alal yu bëree bëri waaye askan bi war ndax la ndax alal ji du fekkante ren ba déwén wala maanaam ci kilifa yoo xam ne dañuy yor alal yu bëree bëri waaye mën naa bañ a taxaw seen loxo mooy lu ñëw dañ koy jox kon bu yàlla dogalee nga am. alal ju bëri waaye yaa ngi koy dugal ci buntu yële islam sant ci wàllu sopp rek nga xam ne da ko sopp rek waaye nekk farata wala boog nga di ci investir di ci jël ay nit ñu liggéey mën naa am bu at mi jeexee asaka du la war ndax lan ndax yaa ngi koy def la la islam sant te sax loolu moo moo gën ci islam maanaam alal ji la yàlla jox nga fexe ba di di ko maanaam muy muy muy yëngatu di di di di yokk maanaam moo moo gën a lislaam moo gën a lislaam ndax lan ndax ki nga xam ne mooy aji ñàkk ji bu fekkee yow mi am alal yaa ngi koy yaa ngi koy def ni ni ko ni ko islam santaane di ci yëngatu mën naa am sax moom nga di koy jox loo xam ne mooy ëpp fuuf mu xaaroon ba at mi jeex nga di ko jox waaw bu fekkee da ngaa créé ab société mu ñëw di liggéey nga di ko fay weer wu dee la muy la muy am weer wu dee boo ko dajalee mën naa ëpp fuuf mu xaaroon ba at mi jeex ba at mi jeex nga di ko jox asaka kon islam day bëgg alal ji bañ a bañ a nekk benn barab rek sax ndax yonte bi wax na ne maanaam alal li jirim na ngeen ci yaxal wala ko askaal askaal yaxal alal li jirim ndax nit mën naa faatu bàyyi ci milliard waaye bu fekkee alal ji dañ koo teg benn place rek kenn yaxal bu ca saa yu at bi deewee aska war na ci kon su wéyee noonu rek alal ji mën naa dem ba jeex la ko waral mooy dañ caa yëngatuwut moo tax kon lislaam day bëgg alal ji ñu ci yëngatu muy muy sekk di dolli ko loolu mooy ëppal njariñ borom alal bi waaye mooy ëppal njariñ société bi ndax bu alal bi yokkoo maanaam nit ñi danañ ci mën a jariñu jariñu gën a yaatu boo xam ne mooy gën a yaatu asaka léegi nag bu fekkee loolu amul nag kon asaka mooy ñëw nekk lu mënta ñaan kon mooy nekk deuxième option bi waaw waaye nekkul nekkul ne lislaam waaye kon nekkul lislaam daa jubloo maanaam xeex borom alal ji ne ko faaw alal ji da ko war a génn déedéet waaye da ko sant ne ko alal ji kat maanaam yaa ko moom waaye nag sañ sañ kaa def lu la neex ci at mi boo ko deful nag asaka dog laa war te gis gis nañ ne li mu ko jox ci ab diir moo gën a yaatu gannaaw bi it gannaaw ba at mi jeexee it gis nga li ko lislaam sant mu génn ci bëriwut muy deux virgule deux virgule cinq pour cent mooy alal ji boo ko xaajee ñeent fukki xaaj benn xaaj bi ngay génne xam nga ne loolu lu néew néew la ci alal kon lislaam ñëwut ngir xeex borom alal ji waaye daañu ñëw ngir jàppale ko ngir alal ji mën a gën a yokku su ko defee moom mu gën cee mën a jariñu maanaam askan wi gën cee mën a jariñu kon loolu laa tënkoon léegi ci jubluwaay asaka ji maanaam jublu maanaam jubluwaay bi ñëwee jubluwaay mooy lan bi ñëwee almaqasid mooy lan léegi mu ñëw ci bi ci topp mooy azaka xam ngeen ne mawdu bi ñaari baat la mooy maqasid ak azaka kon taxaw na ci maqasid léegi nag dañuy ñëw ci baatu azaka baatu azaka ci langue arab bëri nay maanaa bëri na maanaa yi ñu ko mën a firee bokk na ci maanaa yooyu dana firi maanaam ak yiw ak yiw dana firi ak yiw lu mel ne li suñu borom wax ne wax naa na min la duna wa zakatan wa kaana taqiyan ay salaaxan wa zakatan foofu day firi ak yiw kon baat bi ci làkku arab dana firi ak yiw ba tey dana firi ak laabal ak laabal mooy ak setal wa tuzakkihim biha ay wa tutahhiruhum biha kon bari na ay maanaa lool ci làkk wi bare dana firi dana firi ak yokk annama wa ziyaada dana firi ak yokk naka noonu lay firee it maanaa ak sell ak sell taskiya wallazina hum li zakaati faa'ilun waaw kon yooyu ay maanaa la yoo xam ne mën nañ koo déggee ci baat bii di azaka bu dee nag ci sharia bu ñu ko waxee li ci jublu mooy lan bu ñu nee asaka ci sharia lañ ci jublu mooy lan asaka bëri na ay ay ay ay xamle yu wutee ci boroom xam-xam yi waaye dañ ci jël benn rek boo xam ne moo tënk mbooleem xamle yooyu xamle bi biñ ci jël mooy dañuy wax ne asaka mooy ab kem la boo xam ne ab kem la wala boog maanaam lu ñu jël ci alal ji loo xam ne dañ koy wutal ab dañ naan nangam lay toll maanaam yoon moo naan nangam lay toll nangam lay toll su ko defee loolu day nekk ci alal joo xam ne alal sàngam la waaye nekkul ci alal yëpp maanaam nekkul ne alal yëpp la asakay war waaye alal sàngam la asakay war alal sàngam asaka waru ci naka noonu dafa am ñoo xam ne ñoom lañ ko war a jox waaye nekkul ne ñëpp ñoo ko war a lekk asaka daa am ñoo xam ne yàlla moo tudd ne ñii ñoo ko war a jëfandikoo xam naa danañ ci ñëw ci kanam insha allah naka noonu it dafa am ci anam buñ buñ ko war a joxee daa am anam koo xam ne ci lañ koy joxee loolu mooy lan dafa am sàrt yoo xam ne moo ci war a daje asaka doo war a ci alal ji waaw xam naa yooyu dana ci ñëw insha allah ba tey dafa am waxtu woo xam ne ci lañ ko war a génnee waaw maanaam bu dee asakay mbay saa yu ñoree rek bu dee ci ngirum maali moom dañ naan bu ñoree rek asaka war na ci saa yu ñoree bañ bañ mañ koo jëfandikoo rek asaka war na ci waaw waaye donte nag am na ñu jàpp ne daa dañoo war a dem ba bu dee lu ñu góob ñu góob ko comme li aay bi wax waatu xaqahu yawma hasaadi waaye bu dee bu dee ci ngirum Maalik moom dañaan bu ñoree rek asaka war na ci bu dee ci alal bala daa asaka war faaw mu am at ci borom maanaam day am at ci borom asaka dog caa war waaye alal lu mu bëri bëri li fekk amul ci yow at asaka warul ci kon asaka maanaam lu suñu borom wax leen nangam lay toll moo tax mu wax ne wa fi amwaalihim xaqun lis-saa'ili wal mahrum maanaam xaq la xaq xaqu maalum mooy loo xam ne dañ ko xam ne nangam lay toll bu dee ci alal nangam lay toll bu dee ci jur nangam lay toll bu dee ci mbay nangam lay toll kon l'islam moo ko moo ko moo moo ko taxdid moo ko précisé ne nangam lay toll nekk ci alal ju ñu ràññeel alal sàngam lay nekk naka noonu ay ay xeeti sàngam lañ koy jox ay jiw sàngam lañ koy jox waaye ci anamu sàngam lañ koy génnee mooy faaw ay sax daje ci bu doog a bu doog a war naka noonu yi ci waxtu sàngam lañ koy génnee bu dee asaka xaw naa wuteeg sarax maanaam asaka ak sarax xaw nañoo nuroo waaye bokkuñ ndax sarax moom nekkut lu war maanaam nit ki mooy volontaire def ko maanaam sa alal ji li muy bëri bëri bala ne xëy sarax sarax lépp waaye asaka moom lislaam néewul la nga joxe lépp dafa am lim boo xam ne danaan la moom moo moo ci war naka noonu maanaam asaka boo ko defut ay daan fekk la ci ay daan fekk la ci xam naa ci kanam dana ci ñëw waaye bu dee saraxe moom dañ koo sopp ci nit ki rek waaye jubluwaat ba tax ñaari baat yooyu léeg-léeg ñu wax asaka jubli ci sarax maanaam sadaxa léeg-léeg mu ñëw ami maanaam azaka waaye léeg-léeg baatu azaka ñëw ami maanaam sadaxa waaye li ñu wute mooy mën nañoo bokk ci baat bi nii ci kaw baat bi waaye maanaam mooy wute maanaam mooy wute waaw kon loolu moo waxoon léegi ci ne asaka mooy kon ab maanaam ab lim boo xam ne dañ ko war a génn ci yoon ci alal ju ñu ràññeel jox ko aw nit wu ñu ràññeel ci anam gu ñu ràññeel ci waxtu wu ñu ràññeel bu dee ñan lañ ko war a jox moom leer na muy juróom-ñetti nit ñoo xam ne yàlla moo leen tudd muy asnaaf maxsuusa muy juróom-ñetti nit mooy aay bi ñëpp xam innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masaakiini wal aamiliina alayha wal muallafati quluubuhum wa fi riqaabi wal ghaarimiina wa fi sabilillahi wabni sabil faridatan min allah wallahu alimun hakim kon aay boobu moo leeral juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñoom lañ war a jox asaka bu dee ci alal ji nga xam ne ci lañ ko war a génne wax naa ko léegi mooy lu mel ne ay juri kër bu ñu nee juri kër nag mooy diggante nag ak bëy ak xar ak gileem maanaam ñeent yi dañu génne asaka waaye lu dul yii moom asaka wëru ci ay fasak ay mbaam ak yi asaka wëru ci kon xar ak bëy ak gileem ak nag mooy ñeent yi nga xam ne asaka war na ci ci ay xeeti jur bu dee ci saafe yi nga xam ne mooy tax asaka war bokk na ca mooy faaw nit ki nekk ab jullit maanaam lislaam sàtt la ci asaka dogu wér bu dee naka noonu it gor maanaam jamono yu nekk ya gor ak jaam amoon na waaye léegi amatut waaye ab jaam moom léppam ab sangam moo ko moom kon asaka wurul ab jaam waaye gor la wax la wax waaye it faaw maanaam sa alal yaa koy moom alal yaa koy moom waaye bu fekkee daña ko dénk rek waaye moomoo ko wala nga sàcc ko asaka wóor ndax moomoo ko ni ki sàcc asaka bu ci génnee maanaam maanaam ni sàcc alal bu ci génnee asaka du baax ndax lan moomu kon faaw alal ji da nga koy moom moom gu mat bu fekkee da ngaa moom alal ji moom gi waaye matut maanaam daam loo ci moom am keneen moom ci dara boobaa it xam ne loolu beneen atte la waaye faaw asaka ji maanaam alal ji nga xam ne yaa ko moom moom yaay moom lépp asaka doolu ci war yow yow dong waaw bu fekkee keneen da ca bokk na moom xëy na beneen atte lay doon naka noonu it bokk na ca sàrt ya wala bokk tàmm nañ ko mooy boo koy génnee nga yéene ca génne asaka loolu bokk na ci yi nga xam ne des na ko tàmm ci asaka nga yéene ci asaka te def ko ngir yàlla tax dañ koy def ngir gistal wala ngir wanewu ak pukkarewu kon loolu mooy baatu azaka asaka mooy leen ci lislaam wax nañ ko mooy kem maanaam kem boo xam ne yoon moo ne nii lay toll ñu koy génne ci alal alal sàngam maanaam di ko jox aw nit sàngam ci waxtu sàngam ci anam sàngam loolu mooy asaka léegi kon damay ñëw ci tomb ñaareel bi muy wàccuwaayu asaka ci lislaam xam ngeen ne lislaam daa am ay ponk suñu saal yi wax na ko léegi muy juróomi ponk asaka nag mooy ponk bu ñetteel mooy ponk bu ñetteel bi gannaaw seere yi ak julli asaka moo ci topp waaye daa boole ñaar daa boole nekk farida ba ba noppi nekk rukn maanaam farida rukniya li koy wax maanaam farata la ba noppi nekk ponk kon loolu day wane am doole ndax farata rek moo gën a yées farata bu nekk ponk waaw kon asaka daa daa boole ñaar yëpp dafa nekk farata ba nekk ba noppi nekk ponk te loolu bëri na lu koy firndeel ci alquran ak sunna moo tax su yonte bi wax ne islam ni nga ko tabax ci juróomi mbir juróomi keno bi ci njëkk mooy seer ne yàlla mooy yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni waaye taxawal julli di joxe asaka muy muy troisième position bi bi ci topp mooy woor weeru koor ak aj makka kon nekk gi mu nekk ponk ci lislaam moo tax muy lu am solo ndax dañuy wax ne julli mooy kenelu lislaam asalaatu amaadu diin waaye asaka mooy mooy pont bi nga xam ne ci la nit ki war a jaar ngir àgg fa mu jëm maanaam bu ñëwoon islam ak kër la a pont a pont bii ñu ne moo moo fay jaar moo fay yóbbu nit ki faaw nga jaar ci pont bi doo fa mën a dem waaye boo fa jaarul doo mën a àgg fa nga jëm kon bu ñëwee julli mooy kennul diine dañ naan azakaatu mooy mooy pompe l'islam mooy xandaraful islam man salaka fiha naja wa man taxallafa anha halaka maanaam képp ku ci jaar mucc waaye ku ko teg gi da nga sànq moo tax ci kanam dinaa ci ñëw képp koo xam ne mën na ko te defoo ko l'islam balay force nga génn soo ko defut mu ñëw force la génn waaw bu yàlla dogalee na nga loolu amut xëy na l'islam taxawul ba ba mën ko def ay ay ay atte yu métti métti ci yàlla teg bu ëllëg yow xiyam ba tey bokk na ci li wane ak solom ci l'islam mooy dafa nekk mandarga ci ak mbokkoo ci diine maanaam yàlla daa wax ne ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla buñ tuubee di joxe di di di julli di joxe asaka kon seeni mbokk lañ ci diine kon asaka daa bokk ci mandarga yi wane ne nit ki maanaam yayoo na mbokkoo ci l'islam mooy li mu wax ne fa in taabu wa aqamu salaata wa wa aatawu zakata fa ixwanukum fi diin maanaam ñi nga xam ne ñoo weddi buñ tuubee di julli di joxe asaka kon seeni mbokk lañ ci diine kon asaka day tax nit ki yeyoo am mbokk ci lislaam waaye it bokk na ci ak am solo mooy daa bokk ci sabab bi ndim ndimbal maanaam man daa bokk ci sabab bi taxe joxe asaka day day tax nit ki am taxe fii ci àdduna ak ëllëg àlaxira bu dee taxe àdduna moom mën naa wax ne rek mooy nit ñi bëgg la sopp la ndax ginnaaw alal ji la ji la yàlla jox am nga xolo bu mën koo joxe ña ngi koy jox faaw ñu bëgg la di la ñaanal di la yéene aw yiw te loolu bu ñëpp maase woon ci loolu rek kon ñëpp am pexe àdduna alaxira wala boog pexe àdduna alaxira doog ñëw ndax lii ki indi gàllankoor ci àdduna rek mooy bañante ak yu mel noonu ak añaan ak yooyu waaye asaka kon day waral nit ñi nit ñi bëgg ko sopp ko bu dee tax ak àdduna bu dee tax ak alaxira moom it suñu borom moo ko warlu ndax moo wax ne alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil axirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun kon ñi joxe asaka boo liggéey ñooy ñiy taxe kon loolu yàlla moo ko warlu ba tey bokk na ci yi wane ak am solo mooy yàlla daf koo lëkkaleeg julli ci alxuraan lu bëree bëri wax nañ ni ñaar fukki béréb ak juróom-ñaar wala ñaar fukki béréb ak juróom-ñett foo xam ne su borom dafay lëkkale julli ak asaka maanaam ku tuddee julli rek day tudd asaka ca wet ga loolu ku ñu wax Fuad Abdul Baaxi wax na ko ci téere bi mu bi mu tuddee al mu'jam al mufahras li alfaabil quran al karim maanaam wax na ne alquran lëkkale na julli ak asaka ci ñaar fukki bërëb ak juróom-ñett ba noppi ba noppi maanaam waxee ko ci xeetu waxeenu yu wute léeg-léeg mu waxee ko ci waxeenu maanaam kuy digle wala kuy xibaar wala yu mel noonu bokk na ci wa aqimu salaata wa aatu zakat foofu day digle mooy na ngeen taxawal julli joxe asaka waaye léegi-léegi mu waxee ko ci ci façon boobu boo xam ne day xibaar lu mel ne li ma jàng léegi aqaamu salaata wa atawu zaka ak yeneen façon yu bëree bëri naka noonu it lañ koy lëkkalee ak ak gëm yàlla maanaam bëriwaat na lu ñuy njëkk a tudd gëm yàlla teg ca julli teg ca asaka ndax li ko waral mooy gëm yàlla mooy li war a jiitu ci jàmm bi moom dafa nekk jëfi xol maanaam gëm yàlla jëfi xol la kon moo war a jiitu saa yu ni ko gëmee yàlla rek kon wuru ci ayam waaye daa war a feeñ ci ay cëram ñu xam ne kat kii gëm yàlla gi wér na moo tax gannaaw bu gëmee yàlla ci xolam daa am lu ko war a màndargaal loolu nag mooy jëfi cër yi da ca jub nag mooy julli te julli jaamu yàlla ak yaram la kon dana jaadu am beneen jaamu yàlla boo xam ne du yaram mooy jaamu yàlla ak alal kon asaka mooy ñëw gannaaw julli kon gis nga ne gëm yàlla bu jàllee la ca topp mooy jëfi gëm yàlla gi la ca war a jiitu nag mooy jëfi yaram te mooy julli waaye gannaaw bu jàllee yëpp jëfi alal mooy asaka kon moo tax su borom di ko lëkkalee noonu nga xam ne day wax day wax gëm yàlla teg ci julli teg ca asaka ba tey bokk na ci li am li li wane ak solo mooy bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni na Mu'adh ibn Jabal ca Yaman ba mu koy dénk daf ko wax ne yaa ngi yaa ngi dikkal aw nit boo xam ne dañoo bokk ci ahlul kitaab bu àggee na nga leen woo ci ñu seere ne yàlla mooy yàlla yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko yónni waaye la mu ko ca tegal ñaar la rek yem ca mooy na na nga leen xamal ne yàlla farataal na ci ñoom julli juróom ñu ak joxe asaka yem ca waaye yóbbu ci leneen kon day wane ne kon asaka gannaaw julli mooy ponk bi apart solo ci lislaam kon li tax li tax mu mu yem ci ñaar yooyu rek gannaawu seere yi mooy wane ne kon ñaar yooyu mu ëpp solo ci lislaam gannaaw seere yi moo tax mu wax ko ne ko na nga leen xamal ne yàlla farataal na ñoom julli juróom buñ buñ nga toppee ci loolu nga xamal leen ne farataal na ñoom joxe asaka ci seeni alal xam ne waaye woomal yi ñoo koy jël di ko jox way ñàkk kon gis nañ lislaam lim lëkkalee julli ak joxe asaka ngir wane seen importance loolu mooy tax ñuy woowee maanaam asaka mooy shaqiqu sala maanaam day mel daal doon nit la moo moo asaka ñoo moo julli ñu bokk ndek bàyyi ngir li ñu amee solo ci lislaam naka noonu yi la suñu borom tarale lool ci nga xam ne yàlla jox na leen alal waaye dañoo lànk ne duñ génne asaka loolu tëkk yu métti métti ñëw na ci li ci gën a fës rek mooy li mu wax ne walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fa bashirhum bi'adhabin bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fa tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanaztum li anfusikum fa dhuqu ma kuntum taknizun muy ne ñi nga xam ne dañoo téye seen alal rek bañ ko joxe xanaa ne dañ koy denc rek jëm ci kenn xamut ñooñu dañ boo ëllëgee maanaam dañuy jël alal jooju daal koy tàngal ba mu tàng ñooñu koy ñaas naan leen lii mooy li nga xam ne moom ngeen doon denc ci àdduna te bañ koo jox ñi nga xam ne ñoo koy jëw naka noonu it ñëw na ci ci xadis yonent bi wax ne bu fekkoon ne du bàyyi ma yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf kon yàlla mën naa bañ a taw bu fekkee daal nit ñi war a joxe asaka lànk nañ bañ a joxe asaka yàlla mën naa téye ab taw xëy na su ko téyewul day bàyyi xel bàyyi may rek kon ñàkk joxe asaka mën naa waral yàlla téye taw bi ba mu tawati kon loolu lu lu lu lu lu doy waar la naka noonu yëpp lislaam ngir xër ci asaka war génn tax na mu daganal ñu xeex ak ñi nga xam ne ñoo ko bañ a génne saa yoo xam ne aw nit dañoo bañ ne duñ génne asaka ngir lan dañ koo weddi wala dañoo bañ daal ne duñ ko def lislaam daganal na ñu formé ab armée dem attaqué leen nangu ko asaka ja nangu alal te loolu am na ci lislaam ci jamono yi Abu Bakar as-Siddiq mooy ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge génnee àdduna dafa amoon ci ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ñoo xam ne dañoo bañoon ne duñ génne asaka ci la Seydina Abu Bakar daal di wax ne nag lépp loo xam ne yonent bi daana ko digle ñu koy def du ma seetaan kenn du ko bàyyi ci la xeex ak ñooñu nga xam ne ñoo doon bañ a génne asaka moo tax yonent bi wax ne képp koo xam ne seereel na ne yàlla mooy yàlla man yàllaa ma yónni di taxawal julli di joxe asaka kon mucc nga ci man sa alal ak sa deret kon joxe asaka day tax nit ki deret mucc waaye alalam mucc maanaam alalam mucc laa bëgg wax kon kii joxe asaka day tax alalam mucc waaye saa yoo xam ne lànk na rek kon faaw dañuy xeex ak moom ba nangu li nga xam ne mooy alal ji moo tax mu wax ne umirtu an uqaatila an-naas hatta yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa in faalu dalika asamu minni dimaahum wa dimaahum illa bi haqqi al-islam wa xisaabuhum ala allah kon loolu day wane ne ñàkk joxe asaka ci lislaam lu mata moytu la lu mata moytu la ndax li ci war a li ci mën a toftaloo ci ay musiba kon loolu mooy njariñul asaka ci lislaam importance asaka ci lislaam ma ñëw nag ci dëgg-dëgg waxtaan bi mooy jubluwaaye asaka ci lislaam gannaaw ba ñu waxee lan mooy jubluwaay wax lan mooy asaka ci lislaam wax lan mooy importance am ci lislaam bi ci topp kon mooy lan yan jubluwaay moo tax lislaam yoonal asaka bokk na ca ba ci jiitu mooy mooy wane ne nit ki ab jaam la maanaam yàlla da ko sant ne ko defal mu def maanaam day dëggal ne nit ki daal nangu na ne moom ne moom jaamu yàlla la ndax yàlla moo ne ko defal lii mu nangoo def loolu te suñu borom tàgg na ñi nga xam ne ñooy génne asaka ci ay berab yu bari ba ci alxuraan kon bi ci jiitu mooy day joxe farata lislaam day joxe farata li farata lislaam ki nga xam ne mooy joxe asaka day joxe loo xam ne farata la lislaam te yàlla moo ko sant kon mi ngi wane ne moom kon nangu na mi ngi topp ndigalul yàlla ci joxe loolu nga xam ne mooy farata yi asaka ba tey asaka xaw naa wuuteeg li ñuy wax impôt ndax impôt moom xëy na nit ki mën na koo joxe waaye du ci ànd ak sagoom mën naa bañ a ànd ak sagoom waaye asaka moom nit ki da ko war a def ngir ne yàlla moo ko sant da ko war a def ci xol bu sedd xol bu sedd guyu waaye nekkul loo xam ne da nga koy def di ci ànd ak xol bu metti xëy na bu dee lu mel ne impôt moom mën naa am nit ki du ko sañ a bañ ndax nii société bi tëddee moo ko moo ko imposé waaye asaka moom da koy def ngir wane ne moom jaamu yàlla yàlla moo ko sant bii mu war koo def ba tey asaka wute nag impôt ba tey ndax impôt moom mën naa am alal ji lu mu gën a bari mën naa am mu mu yokk impôt bi di yokk waaye bu dee asaka moom alal ji lu mu bëree lu mu bëree bëri li nga wax ne moom ngay génne rek moo ngay génne du soppi ko maanaam ki yor ay milliards yu dul jeex moo ki yor ay milliards ñoo yem maanaam ñoo bokk sum maanaam ñoo bokk ñoo bokk li ñuy li ñuy génne ci pourcentage pourcentage du weesu deux virgule cinq kon alal ji mu ne ak mu bëri li nga ci génne moom du weesu quarante maanaam boo ko divisé quarante nga génne benn xëy na bu dee ci impôt mën naa wuteeg loolu kon bi ci topp mooy bi topp ci jubluwaay yi mooy asaka day wane ak cant mooy yaa ngi sant xéewal yàlla yi ndax yàlla jox na la alal nga génne ci lim la sant jox ko ña nga ko war a jox kon loolu day wane ne yaa ngi sant xéewal yi la yàlla jox ndax sant mooy lan sant mooy maanaam xéewal yi la yàlla jox nga delloo ko yàlla muy sant ni amati ilal mun'im loolu mooy sant te sëñ bi leeral na ko ci misaal bi naan wax ne xaqiqatu shukri la daa man alima shuhuduna min dil jalali ni'ama wa amalun biha lisaanan wa janaan fii kulli ma yarda wa ruknan yastaba yustaba kon sant mooy fexe ba li la yàlla jox ci xéewal nga joxaat ko yàlla ci xol bu sedd guy kon asaka bokk na ci ay jubluwaayam mooy day wane nit nit ki mi ngi sant yàlla ci xéewal bi nga ko xéewale muy jox ko alal ndax sëñ bi day wax ne maanaam doomu aadama yi ñetti xaaj lañ doomu aadama yi ñetti xaaj lañ koo xam ne yàlla jox na ko alal ju dul jeex maanaam lim yor mën na cee dund ba mu des ak koo xam ne la mu yor maanaam daa daa yem ci moom rek ak koo xam ne amul dara kon dama demee génn ñett yooyu koo xam ne yor na lu ëpp ay soxlaam ak koo xam ne li mu yor daa yem ci moom rek ak koo xam ne li mu yor wala boog yoru dara yoru dara bu dee ki nga xam ne nag daa yor lu ëpp ay soxlaam kooku lañu sant asaka kooku la asaka war loolu sëñ bi wax na ko ci al-majmu al-kubra maanaam ni mu sédd ni mu séddalee nit ñetti xaaj wane ne koo xam ne am na lu ëpp li mu war a li mu war a am ak koo xam ne lam am daa yem ci moom rek ak koo xam ne lam maanaam amul dara far mu ne na kon ki yàlla jox lu ëpp maanaam lam war a am war naa fexe ba ci dimbale ñim tane te bañ koo denc jëm ci kenn xamut waaye it gannaaw boo boo ko defee ba noppi it bu ca toftal loo xam ne daf koy yàq maanaam jox nit ki alal ba noppi walbatiku di ko ñax wala di ko wax kàddu yoo xam ne mën naa am mën naa yàq la nga defoon nee na na koy moytu kon ñaar loolu mooy ñaareelu jubluwaay bi mooy day wone ak cant ak cant yàlla ak sant yàlla moom asaka waaye ba tey day wone day laabal ñi ñëw fes maanaam ki nga xam ne mooy génne asaka da koy laabal ci ay bàkkaar léegi nag teewut yàlla jox alal mu génne ci asaka moom administration laabal rek kooku ci ay bàkkaar di attaque yi
te loolu su borom wax na ko mooy xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim koppar yooyu yooyu kon li ñuy soxla ñoo génne asaka day tax nit ki set bi di ci léegi waaye ci ay bàkkaar bari nañ daanaka membre yu bari da nga naan ba du dese benn bàkkaar bu dee waa seen fataan yi seen murtada fataa da wax waa bi ak waa social ñoom ñu ngi jël ba tey bokk na ci waaw kon kenn téléphone day laabal nit ki ci ay bàkkaar ndax yonent bi nee na saraxe bu bu bu ñu wootee.
day faye ay ñaawteef yi nga xamee ne ñii dañuy wax ñoom ñu jëli.
maanaam ndox noonu lay faye sawar saraxe day faye aw ñaawteef ñooñu yàlla yem ak sa yëpp.
ni ndox di faye sawar te sa bu ñu saraxe fii asaka da ciy dugg waaw.
kon joxe asaka dana waral nit ki yàlla jéggal ko ay bakkaaram ba dootu de- ba ay bakkaaram dara du ca des ba tey bokk na ci jubluwaayam mooy day laabal eh, nit ki ci ak nay xam ngeen ne nay day jàngoro ju mata mayut waaye kon génne asaka dana musal nit ki ci ak nay ndax alal dafa tax ci xol kon boo ko attanee génn rek kon yow yaa ngi génn sa bopp ci ak nay di ko jëmee ci ak tabe kon ki joxe asaka loolu bu ko taamee def rek day dem ba jikkoy tabe day nekk ci moom te xam ngeen ne nay yàlla da koo ŋàññi loo ci alxuraan ba tax na ab jul ab jul war war koo moytu euh te doomu aadama ni ko yàlla bindee daa bëgg toujours rek di am alal di dajale euh waaye maanaam nekkut tabiam muy joxe alal waaye ki nga xam ne dafa dafa nay muy joxe alalam loolu daa bokk ci jaamu yàlla yi gën a mag yi gën a mag mooy nit ki nay muy forcé boppam di joxe as di joxe asaka loolu daa bokk ci jaamu yàlla yi gën a mag moo tax bu ñu demee ci Masaalikul Jinaan ci sëriñ bi day wax ne bokk na ci jëf yi yàlla gën a bëgg mooy jëf yi nga xam ne maanaam ay ay njëriñam daa bëri ay njëriñam daa bëri waaye bokk na ci it mooy koo xam ne dafa nay muy forcé boppam di joxe alal maanaam loolu muy def daa bokk ci jëf yi gën a mag ndax lan bakkan du ko bañ maanaam bakkan day bañ day bañ joxe waaye nag booy forcé sa bopp di joxe loolu ngay def muy métti ci yow daa bokk ci jaam yàlla yi gën a mag moo tax moo am solo lool mooy li mu wax ne wa afdalu amali ma taaddadat lahu fawaidu ka xalim qad sabat dem ba wax ne wa kulli ma ala nufusi taqula ka mithli infaqin li shaxsin baxila kon nit ki nay muy forcé boppam di di joxe asak di joxe alal loolu da koy musal ci ak nay ba tey ak nay yonente bi daf ko ŋàññ lool ci ci ay waxam moo tax mu wax ne taay sa abdu dinaar maanaam daal toskare toskare na koo xam ne day jaamu alal nga xam ne bu ñu ko joxee mu sant bu ñu ko joxut mu mer mu ne taxaysa wan takasa wa ida chika falan taxas kon loolu day wane ne kon bëgg alal ak jàpp ne yow rek yaa ko war a moom keneen waru ci am loolu daa bokk ci jikko yi nga xam ne lislaam da koo bañ kon nag asaka daa ñëw ngir saafara jàngoro jooju mooy saafara jàngoro yi nay ci ab jullit ndax nay ak bëgg àdduna mooy mbooleem maanaam mooy bopp mbooleem jàngoro yi mbooleem feebar yi bëgg àdduna moom nay moo koy jur wala boog bokk na ci màndarga bëgg àdduna mooy nay mooy nay ci alal àdduna te sëñ bi waxoon na ne bëgg àdduna mooy njëlbeenu mbooleem ñaawteef yi mbooleem ñaawteef yi boo ko doon lim jàppal ne bëgg àdduna mooy na ca kaw li anna li anna xubbaha bi tab'in raasu kulli radan wa ma daahu naas kon bëgg àdduna mooy njëlbeenu mbooleem xeeti ñaawteef yi kon lislaam daa ñëw ngir génne xolub jullit bi ci bëgg alal ak nay moo tax mu sant muy génne asaka moo tax suñ bu waxaat na feneen ba day ne maanaam génne asaka mooy da ngay génne fukkeelu fukkeelu ci sa mbay bu fekkee da ngay bay boo bayee ba mbay mi ñor nga génne ci fukkeelu jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo mu ne loolu bokk na ci ay njëriñam mooy dalay tegal ay ñaawtee yow mi ko def loolu am na fu ko sëñ bi wax ci ay mbindam loolu da daa daa wax rek asakay mbay waaye boo demee asaka la jublu rek maanaam alal bi ngay génne di ko joxe dalay fegal ay ñaawteef yow mi ko def kon loolu mooy jubluwaayu ñaareel bi ma jubluwaayu ñeenteel bi mooy dalay musal ci ak nay bi ko juróomeel nag mooy dalay day laabal alal ji ndax alal bu ca asaka waree li fekk génnewoo ko jàppal ne moomoo ko li fekk génnewoo asaka jàppal ne alal ji moomoo ko soo ko génnee nag léegi mu doog a laab doog a set nga mën koo jëfandikoo kon alal kon asaka day laabal day laabal alal ba tey bokk na ci mooy day laabal xolob aji ñàkk ji ci xeeti mbañeel ak kañaan ak yooyu ndax ni ma ko waxee woon léegi rek nit ki boo ko dee jox sa alal faaw dalay bëgg di la ñaanal di la yéene lu baax waaye bu fekkee nag da ngaa téye sa alal bañ koo jox mu wóor ko ne yow mii kat am nga alal jëlul jeex loolu mën naa jur ak mbañeel ak añaan ci ab xolam kon boo ko jox alal ji faw mu lay bëgg di la ñaanal di la yéene aw yiw di ñaan sa alal gën a yokk waaye boo ko téye bañ koo jox xolam mën naa metti te loolu mën naa indi sax yeneen problème maanaam mooy waral yenn problème yi am ñi ak ñi dem di sàcc ak di nangu alal nit ñi mooy dañuy gis borom alal yi ñu ñu seen alal jooju duñ ko joxe waaye dañ koy fas fasaree di ko yàq loolu muy métti seen xol ba tax ñuy jëf yenn jëf yi kon asaka day laabal xolub aji ñàkk bi nga xam ne moom lañ koy jox ci xeeti bañeel ak kañaan ak yooyu ba tey bokk na ci mooy day day ful ay ay yiw maanaam asaka day ful day ful ay yiw di yëkkati ay daraja ndax su borom su borom wax na ne ki nga xam ne mooy joxe alalam ci yoonu yàlla mi ngi mel ne koo xam ne dafa jëmbët aw pepp pepp wa dem ba nekk aw gub maanaam gub gub wa maanaam pepp wa nekk nekk juróom-ñaari gub gub bu ci nekk am téeméeri pepp am téeméeri pepp maanaam loolu bari bari la loolu misaal la rek mooy wane ne kon yàlla boo defee benn dala koy fulal ay yiw yu baree baree bare bare kon asaka de dugg ci buntu infaq fi sabilillah mooy joxe sa alal ci yoonu yàlla ne yàlla moo ne ku def benn ma fulal la ko ay yiw yu baree bari yu dul jeex ba tey boo ko def ci jubluwaay yi mooy day dimbale mooy day dimbale aji ñàkk ji da koy dimbale ci mu faj ay soxlaam ndax xam ngeen ne ñàkk moom day lu metti loo xam ne sax yonent bi daana ci muslu daana muslu ci ak ñàkk kon ki nga xam ne dafa ñàkk ñu koy jox asaka asaka ji da koy dimbale mu mën a faj ay soxlaam mën a yem ak ñi nga xam ne ñoo am kon loolu bokk na ci jubluwaay mooy fexe ba dimbale way ñàkk ñi ñu mën a faj seeni soxla yi nga xam ne mënut a ñàkk ci seen dund waaye bokk na ci mooy asaka day yokk alal ji ni ma ko waxee woon léegi bokk na ci maanaay asaka ci luxa mooy annama wa ziyaada mooy day yokk alal kon ki joxe asaka bu mu jàpp mukk ne li muy joxe asaka day wàññi alal ji waaye daf koy yokk day yokk alal waaye du ko wàññi kon kon loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax su borom wax ne yamaqu yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqat maanaam riba yàlla daf koy daf koy wàññi maanaam alal joo xam ne daa am riba day wàññi ko maanaam lu mu bëri bëri du am barke waaye alal bi nga xam ne nag moom dafa leew ba noppi nit ki ci génn asaka day gën di yokk di am barke moo tax nga gis koo xam ne mën naa am sax du am du yor lu bëri waaye teewul ay soxlaam yëpp di faju waaye gis koo xam ne mën naa am alal ji dul jeex waaye daanaka doo xam lu koy jëriñ ndax amul dara lu lu lu koy lu koy lu koy wane kon asaka day yokk alal waaye du ko wàññi suñu borom wax na ne yéen ñi nga xam ne yéen joxe seen alal ci yoonu yàlla yàlla moo koy moo koy wutal mooy remplacer alal jooju maanaam wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raziqin kon ki joxe alal bu mu jàpp ne alal ji day wàññiku waaye yàlla moo garanti ne da koy yokk moom moom yàlla moo koy yokk te it yonent bi wax na ne saa yu saa yu nit ki xëyee am na ñaari malaaka yoo xam ne dañuy wàcc kenn kii di wax ne yàlla yàlla na nga jox yàlla na nga jox ak wuutu ki joxe keneen ki di wax ne yàlla yàlla nga xañ nga xam ne mooy tey alalam yàlla nga ko xañ kon joxe alal day tax alal di yokk waaye tax mu wàññi mooy li mu wax ne ma min yawmin yusbihu fihi al ibadu illa wa malakaani yanzilaani fa yaqulu ahaduhuma allahuma a'ti munfiqan xalafan wa yaqulu al axar allahuma a'ti mumsikan talafan maanaam kenn ki day ñaanal ñiy joxe mu yokk keneen ki di ñaanal ñi nga xam ne joxe wuñ muy wàññi ko ba tey waxaat na moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne maa naqasat sadaqatun min maal maanaam alal asaka du ko wàññi waaye daf koy yokk ba tey bi ci topp mooy asaka day wane ak dimbalante ci société bi ndax bu fekkee ñi ñàkk ñi ñi am ñi leen di geestu di leen jox kon bu yàggee ñàkk day wàññeeku ci société bi te su boobaa nit ñi danañ dund dund bu neex waaye saa yoo xam ne way woom way woomal ñi ngi seetaan way ñàkk ñi rek société bi kon dund gi day gën a góose am du normal na mu war a demee kon génne asaka di ko joxe ñi ngi ko war a jox day tax société bi mën a dund ci ak dal ak teey te yonente boo xam na ne misaalam jullit ñi ci niñ bëggantee da mel ne aw yaram xam ne bu kenn bu ci benn cër feebaree mu mel ne mboolem yaram yëpp bu feebar kon asaka day wane ne kon jullit ñi ñi ngi yëgante ci seen biir way woomal ñi ñi ngi yërëm ak di bàyyi xel way ñàkk ñi te loolu lu am solo la ci ab société bi ci topp ba tey asaka day yokk li ñuy wax économie day yokk économie loolu lu leer la loo xam ne buñ ko jëmmalee na mu war a na mu war a doxe économie day gën a yokk te su boobaa am am day gën a yokk ndax saa yoo xam ne waaye woomal ñi jox nañ seen alal waaye ñàkk ñi ñu am lu ñu mën a dunde kon léegi dañu waaxu dem ca marché ba wuti luñ dunde te bu ñu demee ca marché ba wuti luñ dunde su boobaa marché bi day yokk kon faaw marché bi day yokk ndax bu prix yi prix yi maanaam ñëpp bu ci bu ci mën a jot rek kon léegi ñeneen liggéey ñoom it dañuy yokk seen loxo dañ di produire yenn marchandise te ku wax production da nga wax employé mooy ñi produire dañuy soxla waaye liggéeykat kon liggéeykat yooyu ñoom it bu ñu leen bàyyi woon mën nañoo am maanaam bu ñu am bu ñu am liggéey kon bu ñu leen jëlee ñuy liggéey ci marchandise bi di ko produire day yokk ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo am liggéey waaye bu saa yu ñu tëyee asaka bañ ko joxe. marchandise mi ci marché ba day lambu te bu lambee ñi nga xam ne ñoo ñoo ñooy ñooy produire dañuy téye seen loxo te su boobaa kon ñooy liggéey dañu am luñ liggéey kon kon bu baax économie day fermer kon loolu leer na loo xam ne asaka daf koy waral mooy day yokk économie am réew. ba tey bokk na ci mooy ba tey bokk na ca mooy maanaam ak woote ak woote jëm ci yàlla asaka day. ak da'wa ilallah mooy day wane ne nit ki mën na cee jaare ba indi ay nit ci lislaam mooy ak da'wa ilallah ndax xam nañ ci ñi nga xam ne ñu ñoo war a lekk asaka mooy al mu'allafat qulubuhum xam ne bu njëkk mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ne bu ñëwee ci lislaam mën a am njariñ ci lislaam ñu jox leen asaka ñu mën a ñëw ci lislaam loolu bu njëkk nekkoon na politique boo xam ne dañ ko daan def donc xam ne léegi bari waaye jamono ja islam bi doog a jóg xam ne tax ko am doole lool daanañ jël ci asaka ji di ko jox ñi nga xam ne jàpp nañ ne bu ñu tuubee danañ amal islam njariñ ñu leen koy jox kon da'wa ila Allah daa bokk ci maqasidi zaka waaye ñi nga xam ne ñoom la suñu borom wax ne ñoo ko war a yayoo it yemut ci kenn rek wala ñaar waaye ab lim la muy juróom-ñaar wala juróom-ñett ñoo xam ne ñoo ko war a ñoo ko war a lekk loolu dafa am ab jubluwaay bu ci am ndax bu fekkoon ne dana kenn rek moo ko yeyoo wala ñaar mën naa am lu mu sooxee waaye li mu wax ne kuréel sàngam ñoo ko yeyoo nga xam ne juróom-ñaar lañ mooy way ñàkk ñi ak miskin yi ak ñi nga xam ne ñoo koy liggéey ak ñi nga xam ne dañoo bëgg ñu ñëw ci diine ji ak ci yoonu yàlla ak ki nga xam ne daa tukki ba tàkk ci béréb amut lu ko àggale fu mu jëm ñu jox ko asaka ak lu mel ne kii dem ci jihaad muy fi sabilillah xam ne boo xoolee juróom-ñaar yooyu lislaam defu ko noonu waaye tax daa am tax def ko mooy bu ko defoon ci kenn rek kon ñee nga xam ne yitte woon nañ ko mën naa am seen aajo mën naa bañ a soxla mën naa bañ a faju kon boo gisee mu lim ñi mooy ñi nga xam ne kenn ku ci ne boo xoolee am na situation bu nekk lislaam ne nañ ko jox asaka kon lim gim lim mbooloo moomu ab jubluwaay bu am solo la ndax benn da nga faj aajoy nit da nga dimbale nit ci ab xare naka noonu it da nga dimbale nit ci def lu baax da nga da nga génne nit ci ay gàllankoor mooy ki nga xam ne daa nekk ci ab tukki te mënut a jàll bu ñu ko joxee asaka loolu mën na ko dimbale ba mën a ak sam jëm kon gis nga ne ba yemoon ci benn rek kenn rek mën naa des waaye lim ki lim am mbooloo loolu ab jubluwaay dafa am solo la naka noonu bu dee ci ci li ñu ko war a génne muy alal yi bu yemoon ci benn alal rek mën naa des waaye daa wax nañ génne ci alal ci xaalis ak wurus ak xarak bay ak nag ak gileem ak am mbay kon gis nga ne maanaam doomu adama daa bari ay bunt yu mën a fàggoo alal waaye bu yemoon ci dañ ko génne ci alal alal rek xaalis rek kon loolu mën naa nekk mën naa bañ nekk ak maam waaye kon alal ji nañ ko ci génne génne ko ci mbay mi génne ko ci jur gi loolu mooy wane ak maam kon bu yemoon ci benn rek loolu day xaw a des kon lim tanawaay mooy nim séddalee xeeti asaka yi ci alal yi loolu lu am solo la lu mënta ñàkk la te it mooy li dëppoo ak xel mën a nangu ndax alal daa bari ay façon kon façon bu ne war na caa mën a génn waaye bu yemee ci benn rek loolu mën naa des kon loolu daal ci tënk mën na saa wax ne ay jubluwaay la yoo xam ne lislaam dafa woote ngir asaka ngir asaka mën koo jëmmal wala bokk ngir bu mën a juddoo ci asaka bu ñu ko defee bu ñu génnee asaka yi ma wax mën cee juddoo kon képp ku yàlla jox alal te asaka war ca sàkk ya daje ci lay tax sa alal man laa jëriñ mooy dañ ca génne ak yàlla ji muy asaka soo ko defut kon ay daan man la cee war ngir nag solo su asaka ji mu am ci lislaam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi fi nekkee moom moo daan dox ay jéego ngir asaka ji génn kon moo fi nekk loon moo nekkoon kilifa jullit ñi moo daan taxawu ci asaka yi génn ndax su borom daa wax ne na nga jël asaka ci seen alal moom moom ndigal la moom kon moo moo ko war a jëlee mooy kilifa jullit ñi kon li ñuy wax al amiluna alayha mooy ñi nga xam ne ñoo ci liggéey ci jamono yonent bi la ci la ci la tàmbali woon ba gannaawam ab diir bu yàgg muy am loolu nag moo dem ba jamono jii fii ci sunu dëkk bii di Touba kii fi nga xam ne moo fi nekkal Sëriñ Touba di suñu taxaw yàlla na fi yàgg mu dem ba gis ne ponk bi di lislaam nag dañ koo xaw a bàyyi ginnaaw dëkk bi dëgg la ñëpp gëm nañ yàlla ñi ngi julli masha allah ñi ngi woor weeru koor ñi ngi dem pànk ñi ngi dem màkka ci nga xam ne war na leen waaye nag ponk asaka moom daa mel ne dañ koo gannaawoon lool tey muy loo xam ne buñ ko taxawee dañ ko war a taxawee mën naa saafara lu bëree bëri ci askan wi ndax bëri na lu ñuy jàmbat ci ñàkk ñàkk génne asaka moo ko waral moo tax suñu sëñ bi joxe ndigal kon ñu taxawal kër goo xam ne day saytu asaka yi ñi nga xam ne ñoom la war lépp luñ ci soxlawoo ci ay leeral buñ jokkoo bu ñooñu ñu taxaw leen bañ def ko ni ko listaan santaane loolu nag mu jël ko dénk ko Touba ca kanam nga xam ne ñoo koy saytu muy li ñu wooye kër asaka yi muy liggéey bu rëy boo xam ne suñ dee ko taxawal waaye dénk ko Touba ca kanam ndax xëy na contexte bi suñu saale jaxate mi sama dana ci ñëw Touba ca kanam ni muy liggéeyee di ci wàllum social di dimbale nit ñi dafa demoon ba am ñoo xam ne dañoo jàpp ne war nañ ko jox war nañ ko jox asaka war nañoo jël asaka di ko jox te moom loolu tax ko war a jóg ndax asaka mbirum mbirum islam la te Touba ca kanam nag mbirum yoon murid la bi loolu amee nag ñoom ñu dem ci sëriñ bi wax ko ko xamal ko li xaw mu joxe ndigal kon nañ taxawal kër gi kon loolu moo nekkoon tàmbali bi xam naa suñu salle dina ci gën a ñëw waaye daal. kër la goo xam ne kon daa ñëw ngir ponk bi di lislaam ñu gën koo jëmmal gën koo taxawal ba ni ko suñu borom santaane ñu mën ko defee noonu muy liggéey bu am solo boo xam ne mënut a ñàkk ci jamono ndax jamono moo ko laaj ni ma ko waxee woon ci ginnaaw ndax ba jamonoy baax yonente bi moo ko daan taxawul boppam gannaaw ba it saxaaba yi naka noonu ba ci nit ñu baax ñi kon fi may jeexalee mooy ay dénkaane yoo xam ne jàpp naa ne buñ ko defee asaka dana gën a mën a amal njariñ askan wi te loolu moo taxoon lislaam santaane ko ba ci njëkk mooy asaka daa làmboo wàll yu bari maanaam wàllum social mi ci social mooy dimbalante kon fexe ba jëmmal ko dana tax société bi gën a nekkaat nit ñi gën a nekk à l'aise di dund waaye ñàkk ñi di yëg ne kat ñoom kon bokk nañ ci askan wi waaye it ci wàllum économie ni ma ko waxee woon léegi da ciy suyee rôle bu am solo mooy dana taxaat alal ji gën a tasaaroo nit ñi nga xam ne jotuñ ci mën cee jot ndax yàlla day wax ne kat moom maanaam alal ji bëggut rek mu yem ci way woom way womal yi rek nga nga xam ne wàññaak yi du ci am muy kay laa yàkku na duulatam bay na bay na laax ni yaay minkum muy alal ji wërta de de wërta de si ay loxo rek nga xam ne ñeneen ñi duñ ci duñ ci mën a jot kon ci wàllu économie gis nañ ne taxawaay bu am solo la asaka di di di amal ci wàllum économie ba tey ci wàllum sécurité ba tey wàllum wàllum kaaraange wax wax naa ko léegi ne ñàkk génne asaka mën naa waral doomu aadama bi am li ñuy wax maanaam xol bu bon ba tax na muy dem di sàcc ak agressé ay nit kon ñàkk génne asaka mën naa indi maanaam ñàkk kaaraange ci am réew waaw ba tey kon ci wàllum social ci wàllum économie ci wàllum sécurité ba tey gis nañ ne buñ ko taxawalee yëpp yooyu yëpp mën na cee suyee rôle bu am solo ba tey asaka buñ ko taxawee ni ko war a taxawee mën naa dem ba kenn dootu ñàkkati loolu nag xam naa boo ko waxee mën naa xaw a jaaxal ñu bari waaye ci jamonoy lislaam ba lislaam di doo ko jug ci jamonoy Omar ibn Khattab ci jamonoy Omar ibn Abdul Aziz demoon nañ ba réew mi kenn ñàkkatut ñëpp am loolu nag la ko waral mooy dañ ko defe woon nañ ko waroon defee ñu ko war a génne di ko génne di ko jox ñu ko war a jox te suñ ko defee noonu ni mu war a demee réew mi su ñax gi jeexul it mën naa wàññi ko mën naa dem ba wàññi ko lool lool kon xam naa waxtu wi mel ne mi ngi jege loolu daal lañ tënkoon sëñ Saliou ne woon nañ ko indi ñu gaaral ko fi rek insha allahu taala di jégalu nag xam naa lu ciy leerlu ci sunu ñàkk mën a wax rek waaye amoon nañ yéene mu gën a leer ba mbooleem ñi doon teewlu man cee gën a jariñu di ñaan suñu borom defal nu dégg ak topp di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi téwéer ak mbooleem njabootu sëriñ bi wa axiru daxwaana alhamdulillahi rabbil alamin